asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli ñi mbokki taalibe yi mbokki waa àddina bépp ñu ngi leen di di leen siyaar jox leen seen wàccuwaay bu baax a baax te di leen baal xaq di leen baal tey ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal ñu ak njëggal ci saahir ak baatin àddina ak àllaaxira di am mbégte di am kontante bu baax a baax ci seeni jëmm si topp gi nga xamante ni yéen a ngi koy topp seen émission bi di déglu sa njëriñ rawatina si seen seen bi di MIG TV di gën a feddaliwaat sunu bëgg jëmale si yéen ak sunu cofeel jëmale si yéen tey du nu dañ di ko wax chaque jour ngeen di gën di jàpp seen bi di MIG TV yokk abonné yi bu baax a baax a baax yokk semi lépp lo xamanteni rek luñ njëriñ la ak information bo xamni bu ñuy gëna a di ñu gëna xamal mom moy ki leen kay jox fan yi nag danoo nekk ci période bo xamanteni dafa tombeek lu mag lu reuy lu am doole xiidul mubarak muy tabaski doon lo xam comme ñu ko waxee woon koroog yëngal na jamono lool tomb yi du ñàkk ñu ko si gën di mën a jëmale gën a ñaaxaat suñu bopp gën a ñaaxaat képp koo xamante ni nag am nañ sañ sañu ñaax la ngir ñu gën a bàyyi xel comme ni nu ko yàlla digalee bi mu ñu ko digalee dana képp koo xamante ni man nga ko nan ko def ku ko mënul wàcc na la ginnaaw bi mu tegee ay charte كمان لي نعرف لي كوكمونو تفلي كوكمونو تفلي كوكمونو تفلي كوكمونو واجتنا لا نبايع لنا سنة سنة فرد ليلا دي سنة ينتمي على شيدنا إبراهيم لولو دون لو خمني لون جن ورا بايع خلا لما قلنا واي كم ينكو وخي ونكروك نيكن سي جيتال جامو سن غورم بي سبحانه وتعالى نداخ yeneen yàlla maam Ibrahima jëmm la joo xam ni ndawal yàlla la ci kaw suuf doon it jëmm joo xam ni yàlla da ko mayoon ay doom yu barkeel ay doom yu am solo ay doom yoo xamante ni ku leen gis bëgg leen a doomam mbëggeelam jëmoon ci doomam Ismaahil mbëggeel gu yaatu mbëggeel gu sori lool sunu borom jublu ko gën a xamal gën koo jàngal xamal ko ne ko mbëggeel dëgg dëgg mbëggeel ba àgg si doyo mbëggeel man sunu borom subhanahu wa taala rek maa ko yeyoo sunu borom jublu koo xamal ne dëgg dëgg mbëggeel moom rek moo ko te bëgg gii nga xamante ni yaa ngi koy woote woo di ko bëgg di ko jëmale si sa doom ji Ismaïl mën naa dem ba indil ko gàllankoor si digganteem ak boromam subhanahu wa taala ndax olof day faral di wax ne loo bëgg mu la waaye loo bëgg jëfal ko te fii naa ngay sunu borom subhanahu wa taala si jaamam rawatina ab yonenteem tax na mu jëflante moom noonu mu jëflante ak moom si jaarale ko si gént reyloo ko doomam jooju mu gën a bëgg ndax yàlla buy natt ab jaamam da koy natt fa kàttanu yërmandeem nekk ak fa kàttanu mbëggeelam nekk si xolam mu jaarale ko si foofu ngir di xool ne jaamam bi ndax pare na jox ko lim gën a bëgg ndax ñu mën a waxee ne yeneen ci yàlla Ibrahima إسماعيل اللي جنون بق ده دكوا بقون بعد سلول مرسوم برم جار لكوه في جند نيومهم في جند دي نياريون تد جند تد جند كل نور دليله دي جند وياه ديجال لواحد كاب دل جنون جفلو مين ديجال نباي كوس سبورم سبحان الله محمد لا لينا ديجال لا دكوا سبورم سبحان الله ngir saafara tawat bi nga xamante ni moo nekk foofu kon benn point mi ngi noonu si bëgg bi mu woo doomam jooju di la wax ko li nga xamante ni si jiwu boppam mooy li xew te sunu borom wax ko ko kon pare na pour jëfe ndigal boromam subhanahu wa taala Ismaahila nangul ko loolu. kon pare na pour jëfë ndigalu borom subhanahu wa taala wa ismaila ci jëmmi bopam nangu ne ne li ci jëmmi bopam papam bëgg jëflanté mom muy bayam di way juróom ndigal lu bàyyi ko si borom kon moom mënul mudul nangul ko dogal bobu te and ak mom c'est loolu nga xamanteni wacc na si ko and ko mom and bu sedd doxal and bu dalal xel Wo way juróom mu jigen momit mu gëm borom subhanahu wa taala nangoo ko comme ni nga ko ko waxee comme ni ko Ismaahila nangoo tey nangu gi mu ko nangu ak pare gi mu pare tax na mu ne ko papa mu ne ko ah mu xamal ko ne ko boo demee bay jëfi sa ndigal na nga takk samay bët tey paaka bi nga xamante ni moom nga bëgg a jëfee ndigal loo ko mën a gën ñawal ba nga xamante ni boo ko tegee sama put yàggaay gaag métti ba méttaay ba du fa am wala du fa demee noonu na nga ko def kon kooku pare na pour joxal boppam ngir ñuy jëfe si ndigalu boromam subhaanahu kon ba tey loolu si njàngale la te ba tey mi ngi jàngale te lu mu war a bàyyi xel la waaye yoon jigéen nga xool doom ñi mu jafee ak ñi leen yàlla yéexee may doom ndax dund ngeen ba àgg si yenn âge yi suñu borom doog di leen may doom nga xam te ni fekk yàlla mayee doom bu fekkee ni si jigéen la foofa li nga xamante ni moom lañ xam bu fa doomu aadama baaxoo àgg dootul mën a amati doom ndax day taxaw duram day arrêté foofu yàlla may leen fa doom doom ju doom doom doom ju doomu doom ju taaru doom joo xamante ni doom ji neex bëgg la yàlla ñëw wàcc ndigal loolu waaye juróom bu jigéen fas yéene saa ànd ak moom ngir mu jëfe ndigal loolu pare pour muñ soxna Saarata di soxna soo xam ni kon nu gën a war a roy la ku nu gën a war a bàyyi xel la bu baax a baax fa sa seytaane jaar ak ñoom ngir yàqal leen te dégg nga ko waxee yow sa papa dalaa bëgg a rey ak ni mu doon yàqee xelam ak ni nga doone xale bu góor ak ni la àdduna soxlaa nga pare yow pour joxe sa bakkan ngir ndigal lu bàyyi ko si boromam ngir lim la wax ne ndigal yi lu bàyyi ko sa borom di mu jigen wa naka noonu yow nga am jenn dom ji yalla may lako ak sa dom ji ni mel nangam ak nangam mu mën laa jàppale si yu bëree bëri am xey bis rek ne desi ci jëfe ndigal borom subhanahu wa taala ngir tëddal kor ko rendi nga ñu and ci ñu musul si mom xam ne la ba paré santat yalla bu baax baax ci muñ gi ñu muñ nangu bu wër ci seen xol fasiyene yéene jëfi ndigal borom subhanahu wa taala bay jël ay di ko sànni ngir koku si jëmi bopp yàqal gi mu leen nar yàqal kon loolu moy li nga xamanteni mo sabab bis bi ana lan mo sa top ba nu demee ba koy tëddal war ko rendi sunu borom ak magayam ak yërmandeem ji yaatu ji kawe lool bari lool yërmandeem ji nga xamante ni ñëpp xaj nañ si te ñëpp si lañuy dund ba ñi nga xamante ni sax si jëmmi boppam wóotiwul ak ngëm jëme ko si moom boo xoolee sax ñu mel ni ku si xaw a fii si àddina kon yàlla ku bari yërmande la xam ni lim doon saafara saafarawu na te xam ne jaamam bi ku ko bëgg la ku ko kennal la teg na ko foo xamante ci jimi bopam moko gënal li doomu li ko soxna mu dawal yërmandeem yónni malaika bu mag bu tedd bu sel ba ruhul akbar jibril amin di kun wóolu ngir mu indil ko ab gatt rocci tout tank bi dawale fa mu mën ci jëfe li nga xamanteni moy ndigalu borom subhanahu wa taala kon loolu tomb la bu rëy boo xam ne saa yi buñ ko settantalee dinañ si gis suñu njariñ dinañ xam lan la fa yàlla bëgg a jàngale dëgg-dëgg jàngale ndax loolu saa yi bu ñu ñëwee fii loolu lañ war a gën a njëkk bàyyi xel doog a jëm si ndigal li ndax bëri na ñoo xamante ni ni ñu koy jëlee ak ni ñu koy defee du dara lu dul addina te loolu war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax bu fekkee ne li ñuy woote si ñun dëgg la. puukareewu puukareewu bi nga xamante ni moom la ñuy def ak ngistal yi ak nëw jëf ji dafa yaatu bëri lool te jëm na lépp loo xamante ni ndigal la lu bàyyi ko si suñu borom subhanahu wa taala ba saa yi bu ñu koy def seytaane dina fexe ba nu dugal si lépp lu yàq ay bi nga xamante ni day yàq xol muy kon su ko defee ñu tubaat bu baax te taxawlu foofu di leen wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi tey ñaan suñu borom yóbbu ñu si bis ak jàmm te ku si nekk la nga xamante ni moom nga mébét te bëgg ko suñu borom defal la kattan nga mottal matale ko si sa bopp matale ko tamit si say njaboot muddan wa rahmatan minallahi ba dee